Bahasa na di ñëw nuyu baaxa baax di leen ziar am mbégte contenté euh, tey nag gis ngeen fu yàññi fi ñu ñëw si beneen mbégte si beneen leneen li nga képp kuy doomu aadama bëgg nga ko dund kuy mariage bi nga xam ne nii Met Shop moo ko amal tey Met Shop bu Wally Ballago Seck Met Shop la fromareen Met Shop doomu Golden Boy de la musique sénégalaise Met Shop bi nga xam ne nii mooy borom la woo kong borom la king of the king Met Shop bi nga xam ne nii gannaaw bu mu ñëwee yàggul waaye fu mu toll nii askan bi Sénégal askan bi monde bi yëpp fu mu toll nii xam nañ ko ak grâce ak kan ki nga xam ni moo nekk Wally Balago Seck bokkee tax na di nag tey mu nekk li nga xam ne nii moo nekk mariage am gis ngeen décor bi nga xam ne nii euh, rafet na lool lool lool lool lool lool lool décor bi moom c'est exceptionnel. saa yoo rafetlu baax kaay waaw li nga defar lool la. kii mooy le golden ah ok je comprends maintenant le moo defal xaytu la golden boo de la sénégalaise mu nekk kii di Mos Diop salaamaaleykum sëñ salaam sëñ bi maa ngi lay la bëggee bu baax. bi naka jiili golden lañ may wax. da nga demoo prophète bi ni wa ñu ngi sante yalla rek ñu moom ay xalé lañ yalla dogal na lii ñu ñun ñoo ko yàlla dogal na ñu ñun suñu loxo lako tak ñu mom ko ñu met met de suñu xarit ñu bokku lepp mu xewle mënu ñu yeen ay mënu ma yow xalé nga da nga wara feñ da nga wara genn ndax ma du ma media mu ma wax ci média sa ngi nek sama roq du liggey sama liggey lepp nak damay dama koy gëreum quoi franchement ndax tamit ko xamni da la woo na la baasal ma yëkkati xaalisam jox la nga bañ mëna la no jëlal ndax yow xalé nga sa da nga wara feñ feeñ ndax li nga yor lu mu bon bon ya nga employé 10 personnes wala 15 sa xalé nga ya nga nek sa me mais génnal nit ñi xam la loolu rek dafa am solo bu baax sa dama ko ci sante tamit li moko ko defal tamit xam nga mom moko mérito quoi franchement alors tak jabar la nga koy ñaanal ba diko ñaanal lu mu bëgg ci sey bi moo ko xam na nit ku baax la nit ku oeuf la yalla defal ko ci lu mu bëgg lepp comprendre nga jabaram tamit nit ku baax la tamit sa moom nit ku oyof la. nit ku baax la. non min naa ko nii rek mais met laa gën a xam. mais nit ku baax la waaw loolu daal laa koy ñaanal. waaw. Euh, sëy bu barkeel sëy bu barkeel daal franchement parler kontaan naa moo tax lépp lu ma mën ci baas bi dama ko def. non fay déggu lu ma la wax. dama na ko bu ma fay. mu yëkkati xaalisam jox ma na ma yow xale nga si dama lay jàppale. non li ëpp na million. lii xam nga ne baas bii boo ko gisee xam nga ne xaalis la. mais xam nga koku kula defal lolou ba pare yaa ngi dégg ne la dama lay jappalé kon koku ah, xam nga amu amu ma fayam aw ma fayam wa wala tamit ñu ay xalé lan quoi dëgg la merci beaucoup ok merci kontaan na yow bu baax a baax te décor bi fu machallah rafet na lol lol lol bu ké tax na di comme ñu ko gisee fu mu tolli nat mbolo ñu commencé ñew ci li nga xamé ni mo nekk mariage met shop bi alors lay dem rek naatangal na yeen kàddu yi nga xamé peut être dina am ay témoignage yi nga xamé ni euh, ñom dañ ko am si ki nga xam ne mooy Mère Thiop wala ki nga xam ni mooy soxna Mère Thiop Mère Thiop soxna si nu waas nu waas nu mu koy waxee madame la nañu ko a madame of the king wala nu koy kenn wala koŋ wala koŋ-koŋoram wala lu xeere wala lu koŋ-koŋ en tout cas bu koy tënnee bi dañ dem xool nan ñoo waaw coupé. lii leen def. di ñëw nuyu baax a baax di leen ziar am mbégte kontante euh, tey nat gis ngeen fu yàññi fi ñu ñëw si beneen mbégte si beneen leneen li nga képp kuy doomu aadama bëgg nga ko dund muy mariage bi nga xam ne nii Met Shop moo ko amal tey Met Shop bu Wally Ballago Seck Met Shop la fromareen Met Shop doomu Golden Boy de la musique sénégalaise Met Shop bi nga xam ne nii mooy borom la woo Kong borom la king of the king Met Shop bi nga xam ne nii gannaaw bu mu ñëwee yàggul waaye fu mu toll nii askan bi Sénégal askan bi monde bi yëpp fu mu toll nii xam nañ ko ak grâce ak ki nga xam ni moo nekk Wally Balago Seck bokkee tax na di nag tey mu nekk li nga xam ne nii moo nekk mariage gis ngeen décor bi nga xame ni euh, rafet na lool lool lool lool lool lool lool décor bi moom c'est exceptionnel. saa yoo dafa dubaas nga defar lool la. kii mooy le golden ah ok je comprends maintenant le golden moo defal xaytu la golden boo daa musique sénégalaise mu nekk Rimo Shop salaamaaleykum sëñ salaam sëñ bi maa ngi lay ziar. la bëggee bu baax. bi naka jiili golden lan may wax mais nga def bracket bi ni wa ñu ngi sante yalla rek ñu moom ay xalé lan yalla dogon na lii ñu si ñun ñu wax yalla dogon na ñu si ñun suñuy loxo la ko teg ñu mom ko ne nah, met met day suñu xarit ñu bokku lepp mu xewle mënu ñu yeen ay eh, mënu ma yow xalé nga da nga wara feñ da nga wara genn ndax ma duma nit mu ma wax ci média sa maa ngi nek sama roq di liggey sama liggey lepp nak damay dama koy gëreum quoi franchement ndax tamit ko xamne da la woo na la basal ma yëkkati xaalisam jox la nga bañ mu ne la no jëlal ndax yow xalé nga sa da nga wara feñ ndax li nga yor lu mu bon bon yaa ngi employé 10 personnes wala 15 sa xalé nga yaa ngi nekk sa ruq me gennal nit ñi xam la lo rek dafa am solo bu baax sa dama ko ci sante tamit bu moko dafal tamit xam nga mom moko mérito quoi. alors tay muy tak jabar la nga koy ñaanal. ba diko ñaanal mu bëgg ci seen bi moko xam ndax nit ku baax la nit ku oyof la yalla dafa ko ci lu bëgg lepp comprendre nga jabaram tamit. nit ku baax la tamit sa moom nit ku oyof la. jarul ko baax la non min naa ko nii rek mais met laa gën a xam. mais nit ku baax la waaw loolu daal laa koy ñaanal. loolu waaw. Euh, sëy bu barkeel bu barkeel daal franchement parler kontaan naa moo tax lépp lu ma mën ci base bi dama ko def. ñaata la la fay. déggu li ma la wax. dama na ko bu ma fay. mu yëkkati xaalisam jox ma na ma yow xale nga si dama lay jàppale. dinaa jox li ëpp na million. lii xam nga ne baas bii boo ko gisee xam nga ne xaalis la. mais xam nga koku kula defal lolou ba pare yaangi ngi dégg ne la dama lay jappalé kon koku ah, xam nga amu amul maam fayam amoo fayam wa wala tamit ñu lay xalé lan quoi dëgg merci beaucoup ok merci kontaan ci si bu yow baax a baax te décor bi fu macha allah rafet na lol lol lol lool bokkee tax na di comme ñu ko gisé fu mu toll nii yi ñu commencé ñew ci li nga xamé ni mo nekk mariage met shop bi alors dañuy dem rek naataangal na yeen kàddu yi nga xam peut être dina am ay tewma jaaji nga xam ne nii euh, ko am ci ki nga xam ne mooy Mère Thiop wala rek ki a xam ne mooy soxna Mère Thiop Mère Thiop soxna si nu waa nu waa si nu mu koy waxee madame la nekk wala madame of the king wala nu koy waxee sax kenn wala koŋ wala koŋ-koŋ xam wala lu xeere wala lu koŋ-koŋ en tout cas bu ko internet bi nañ dem xool nan ñoo waaw coupé. lii leen def. Sen.